dimanche dañu xey jog dem ci centre de vote yi ne ñun tan tànn bulletin Pastef dañuy tan def confiance au gouvernement dañu tan def confiance à tête de liste président Ousmane Sonko ñooñu ñoo tax tay li ñuy wax ci résultat ñu def muy résultat yu am solo ndax boo xoolee ci département Dakar euh, on est 19 communes d'arrondissement et benn commune moo nekk suñu kanam muy la commune de Touba ci des yëpp suñu ginnaaw lañ nekk hormis parce que nga xam ne dañu en terme de pourcentage ñu def 38 pour cent ñaari communes yëpp bu weesoo loolu communes yi des yëpp euh, du xeeb leen nag parce que ñun ñëpp liggéey nañu waaw def nañu de très bon résultat parce que ñu ci nekk ku ci nekk romb nga peut-être sur 55 pour cent jëm 60 pour cent ku nekk liggéey waaye nag yàlla jagleel nañu ñun defal nañ ñun ñu mën a yegg ci taux de 60 pour cent li nga xam ne diko ci yegg bari kon nak loolu dafa laaj ñu jaajëfal militants yi xam no liggéey waaye jaajëfal également population yi nga xam ne def confiance la liste de Pastef ñoom ñoo dem voté waaw loolu tamit euh, motif de satisfaction bu maga mag ndax euh, élection euh, yi fi jaar yëpp depuis 2019 parce que Pastef focam ñu ngi koy installé en 2018 donc élection bi njëkk bi ci topp 2019 la mais bo ba léegi élection bu ñëw rek def jaloore élection bu ñëw rek sport bi gën a yokk donc di sant yàlla bu baax di gërëm militants yi parce que loolu seen liggéey la di gërëm également comme li ma wax léegi rek électeurs yi xam ñoom ñoo def confiance